You're the one. You're the one. You're the one.

salon de massage beaucoup xamante ni mi Sandra massage oui ben personnage beaucoup xamante ni suñ ko centraliser ci ben affaire amaana kii di musicien la comment commencé K santam commencé à moom daal de détenir également qui ben institut boo xamante institut bu nekk faut ca mais le genre Sweet Beauty bi nga xamante faut foofu la Ousmane Sonko demoon doon noggatu kii qui xamante maintenir moi Adji Sarr guinard l'eau n'est salon la faut oublier madame du ko salon de massage alors que lu làqatu ci salon ba madame prostitution cagatu ak li nga xamanteni moy mooy ginnaw nag ki nga xamanteni mo moo salon bobu du musicien da doon proposer ay massage yo xamanteni da nga wara teud ak ñi nga xamanteni moy client yi amaana soo ñëwee def massage ba paré da nga def massage plus manam suñ la bësee damp la ba sayram noy après yow da nga wara a ñëw ak ñi nga xamanteni ni client yi ba nopi ñi fay leen benn xaalis muy affaire bo xamanteni jamono ji bu mu ébruté am na ci benn xale bu jigéen boo xamante ni atam mi ngi toll ci fukki at ak juróom-benn turam commencé F santam commencé G moo décidé moom daal daal di démissionné ci li nga xamante ni mooy salon boobu ginnaaw bi nga xamante ni cagatu déguisé moom moo fa nekkoon kii di gérant institut beauté bi nag ginnaaw bi ñu confisqué moo xamante ni mooy yére yi nga xamante kii di FG amoon na ko ginnaaw bu mu leen réclamé li nga xamante ni mooy ñeenti junne su prétexte dafa war a fay li nga xamante ni mooy frais de location bi nga xamante ni néegam la war a fay muy benn partie boo xamante ni détaillé nañ ko si suñu source

ci bir lol nak ki nga xamanteni moy gérant bi di KA mo proposer ben test bo xamanteni pour ñu recruter ñi nga xamanteni ñom lañu wara ñu war def naka lañu wara war ak ñi nga xamanteni moy client yi ginnaw lol nak ben séance de massage lañu indi ba nopi mu daldi teud ak ki nga xamanteni mom lañ fay doon ba nopi lol la mineur bi daldi confier bu tollu ci fukki at ak juroom ben ginnaw bu mu jàkkaarloog enquêteur ba tay muy ay séance yo xamanteni séance de mballu la ma ñi dippee ko masturbation ci bir salon bobu nga xamanteni mom moom la Sandra massage en tout cas salon de massage xawma lan la fa mballu wuti wala masturbation kii di FG dal muy xalé bi nga xamanteni mi ngi tollu ci fukki at ak juróom ben déjà protection des mineurs waru ñoon permettre xalé bobu muy liggéey ci salon bi ba nopi ñu war ko fay 20000 francs bo xamante da dafa war fay négam xalé bobu fukki at ak juróom-benn naka la mëna a luwee mom kessé en tout cas lu doy war mom ci xalé bobu moy déclarer waat ginnaw bu mu démé fofu rendre compte plus tard que lepp lo xamante ñing ko fay def ci massage ci salon bobu di Sandra dañ doon proposer li nga xamante moy ay relations sexuelles yo xamante dañ koy tarifier wala dicter ko li nga xamante moy finition amana comme Adji Sar num ko waxé won ci salon suite Beauty wala jëm ci walu mballu manam muy masturbation yi nga xamante dañ koy defal client

soldé wu gis fa ay loo yoo xamante ni ay loowu préservatif la maanaam ay capote yoo xamante ni utiliser nañ ko ba noppi ginnaaw loolu nag la limier yi maanaam di policier yi arrêté ki nga xamante ni mooy gérant bi di KA ba noppi daal di indi benn exploitation sexuelle boo xamante ni am na ci ay mineur yoo xamante ni ñu ngi toll ci fukki at ak juróom-benn ba noppi daal di koy tegal li nga xamante ni mooy prosénétisme yeneen ñetti masseurs yeeg yi nga xamante ni fekk nañ leen si salon bi ñoom ñëpp dañ leen mettre ci li nga xamante ni mooy en arrêt parce que gisuñu benn yoon ñu bind seen tur ci fichier sanitaire bi nga xamante ni social bi nga xamante ni képp kuy caga moom nga war a bind sa tur biñ leen interrogé ci procès verbal bi ñi nga xamante ni mooy ñetti masseurs yi reconnaître que nañu ñoom dañ doon def li nga xamante ni mooy cagatu boo nga xamante ne cagatu clandestine la bu déguisé kii di gérant salon Sandra Massage nag moom avoué na ay relations sexuelles yoo xamante ni am na ko ak ay mineurs yoo xamante ni ñu ngi toll ci fukki at ak juróom-benn en tout cas kii di musicien bi ngi ko incriminé jëm na daal avoué que tëdd nag ak ki nga xamante ni mooy plaignante bi di toll ci fukki at ak juróom-benn ak ki nga xamante ni mooy mise en cause bi nga xamante ni nii na lépp loo xamante ni teg nañ ko ci kawam muy mineur boobu ginnaaw bu mu exercer li nga xamante ni mooy cagatu clandestine boobu. suñu source duñ ciokal ci terme enquête bi dal ben ronde lañ fa def dal biñu ñu police su Saly ginnaaw loolu kii di gérant bi salon Sandra massage ak ñetti masseuses yu présenté nañ leen na bërkat dembu ci àllarba bi kii nga xamanteni moy procureur de la république bu nekk fofu ci tribunal grande instance bu Mbour en tout cas muy lu doy war lo xamanteni gis nañ ko fofu ci sali dañ doon mbubboo salon de massage muy Sandra massage ben musicien mom ko bo xamanteni touram kala commencé santam commencé A ak yenen ñetti masseuses ginnaw bi nga xamanteni ben masseuse buñ fa jëloon tollu ci fukkaat ak juróom benn moom moo fa nekkoon di def ay pratiques yoo xamante maanaam dañ leen di jàngal ni soo maasee nit ki ba pare da nga war a tëdd moom ba noppi loolu dañ ko waroon fay maanaam ñi dippee ko cagatu déguisé en tant que ay mineur ay xale yu ndaw ñu leen di exploité mooy li may wax toujours rek ONG yi fi nekk di xeex yenn cause yoo xamante man euh, déperversion de mineurs de mœurs wala ay mineurs je que ci xeex yu mel nii lañ leen war a gis mais souvent su ñuy rëy làmmiñ ci plateau man len su ngeen di xex ben cause am benn récépissé ci ben organisation dañ leen wara a gis ci bépp combat bo xamanteni dafa méngoog charte bi tax ñu jox leen récépissé mais moy lu doy war ay ONG tapalé ONG naafeq ONG fumiste ay pa yo xamanteni ne dañu dem ba nga xamanteni ne retraité moo leen dese au lieu ko ñi lem sen geen dem jaamu ji yalla mais fi lañuy ñuy nekk di kekkantoo di wut duñuy ñuy chantager di sonal ni je crois que ci combat yu melni dañuy xaar ñen ñi di xaar ci ñen ñoo xamanteni ni soit disant ay prêcheurs lañu alors que ken xamul ay genre yan nit lañu nekkeew ñu fi lu dul benn opportuniste donc ci combat yi lañ leen war a gis. Teddy Teddy. Ndiol Ndao. yoon liggéey yooyu di fii waay lu ci ñaar.